asalaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. Birama li ci nar a fës benn ponk la wala ñaar bokk na ci génnub àdduna taskatu xibaar boobee di ren mari fay ni ki tey ji la génn àdduna beneen ponk bi dina ñëw xët bu yaa ci li nga xamante ne moom mooy julli Aïdara Kabir loole buñ ci noppee andi leen wax sa xalaat tey këntënk leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy ne rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen la fi boor Alassane Wade moo féete ci xarale Sud FM. Birama Ndiaye. niñ leen ko waxee ci sànq ginaaw bi ñu leen nuyoo rek doore ko ci génnub àdduna ki di taskatu xibaar boobee di Reine Marie Faye ni ki tey jii fii ci ndakaaru doon na ñenn ci journaliste yi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk. def lii di journal ci kàllaamay wolof moom nag doon na ki nga xamante ne ku xarañ la ci liggéeyam nekk itam ki nga xamante ne du ci yox yoxi benn yoon yooyee kàddu kii di natongam doon liggéey moom di Abdoulaye Sakou Faye moom moo ko yëkkati moom itam nekk taskatu xibaar nekk it directeur bu rajo bi ñu duppee Trade FM ñu teewlu ko ak Marie Rosalie Ndiaye. parce moom ay visage bi différent maanaam ay talent yu différent parce que xam nga ne ren dafa commencé dañ ko commencé yooyu di kàddu Abdoulaye Sakho fay doon jàll eh, andi seede ci kii di Reine Marie fay nekkoon taskatu xibaar jaar fii itam fi nga xamante ne moom mooy rajo Sud FM ci sama kàddu rédaction Sud FM ak groupe Sud Communication ñoo ngi jàlle kii di njabootu way dawlu gi keneen ko génn àdduna itam bokk na ci imam bu ratib bu eh, Sandiara di imam Daouda kamara moom itam moo ngi génn àdduna bi muy am juróom-ñett fukki at ak ñaar niki tey ji lañ ko jébal boromam foofee ca sànjara moom nag moo nekkoon imam ratib ba doon amal ziar annuel at gu jot foofee ca sànjara bu ñu tamxarite ba ci ëllëg sa kilifay diine àdduna ak lii di kilifay àdda ñoom ñëpp ñoo ko fa doon teewe kii di imam Daouda Camara nag nekkoon na ki nga xamante ne ku doon taxawu ci wàllub askan wi ak nit ñi nekkoon itam ku nekkoon ku jàmbaare ci wàllu wàllub lislaam noonu itam ñu yëkkatiwaat suñu njaal jagleel ko umma islamique rawatina imam ak yu nekk ci mim réew ci génnuk àdduna imam Daouda Camara foofee ca Sandiara. Sud FM ci xibaar yi njiitu réew mi daal dina sàkku ci ndaw ñu ñu gën a fàbbu lii di xeex bi ñuy xeex mbas mile ndaxte gis nañ ne nag bu ko defee ñoom ci seen wàllu bopp dinañ aar bu baax a baax ñi di mag ñi loole ñoom ñoo ci gën a loru président Macky Sall ñu teewlu ko. di nuyu di ziar kilifa diine yi di si gën ràññee xalif généraux yi ñaan yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool suñu kanam te ànd ak wér di ziara waa réew mi yëpp di ziara umma islamique bi yëpp di ñëwaat rekk ci li nga xam ne mooy xew-xewu jamono muy mbas mi te nga xam ne wër na àdduna ba yegg si fii ci Sénégal mbas mi nag ñu ngi siy def suñ kem kattan en tant que gouvernement ci moyen yu bare bare docteur yaa ngi si def seen kem kattan ci seen taxawaay depuis mois de mars ba tey jii te loolu seen taxawaay mosul wàññeeku benn yoon ma profité si pour sant leen gërëm leen ndax tey tabaski la waaye ñoom ñu ngi ci l'hôpital yi ñu ngi ci centre de traitement des épidémies fépp ci biir Sénégal ñu ngi ci Sowétas pour di jàppale ñi nga xam ne tey jii feebar bi laal na leen wala yeneen i feebar kon ñoom gàcce ngaalaama yal na leen yàlla jàppale aussi si seen liggéey fi ñu toll nag ci mbas mi dafa laaj taxawaay yu bees taxawaay yi gën na ñeel nag ndaw ñi ndax bu dee ndaw ñi jàppoon nañ ne ñoom feebar bi du leen dal te loolu wane nañ ne amul dana dal mag dana dal ndaw dana dal kenn ku ne ku mënti doon loo xam ne dañ koy noyyi te mënoo ko gis kenn ku nekk mën na la képp ku noyyi rek feebar boobu mën na la dal ndaw ñi nag li tax may wax mooy bu ñu xoolee fan yi ñu génn li ñu am ci nit yu faatu lu ci bëri si lu jëm ci mbas mi euh, ñu am yenn at yi la maanaam ay mag lañu kon ndaw ñi bu fekkee ne fonk nañu jur yi fonk ñu nga xam ne ñooy seen i yaay seen baay seen i maam euh, faw ñu gën a fagaru si lii ñuy wax euh, geste barrière rawatina colum masque goo xam ne aussi dana muur sa bakkan ak si gémmiñ ndax loolu la ñu soxla muur waaye itam distanciation bi nga xam ne dandoo mètre lu am am solo la bu ñu ko defee rek euh, ak di raxas loxo yi dana nekk euh, loo xam ne lu am solo la ci xeex bi nga xam ne moom la ñu xeex te yaakaar naa ne boo ko ñëpp doxalee noonu booleeg li nga xam ne nguur gi mu ngi koy def ak ak waa kër docteur yàlla mën na fi yemale mbir mi kon maa ngi sàkkuwaat si ñëpp continuer bàyyi xel ne jàngoro jàng ci biir réew mi mu ngi ci biir àdduna bi kon nañu continuer di bàyyi xel si ni ñu war a taxawee saa yu nekk ñu génnee fi ñuy liggéeyee fi ñuy waxtaanee euh, ak fépp foo xamante ne ay nit daañu fa dajale ba ci biir kër yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que tant que loolu mënuñ koo maîtriser ñu def lu ñu mën ci wàllu kër docteur lu ñu mën ci wàllu moyen waaye de continuer di law di continuer di law waaye nañu sant yàlla ba tey ndax euh, Sénégal ak Afrique sax ci boppam boo ko xool effort yi ñu def te teeloon a jël ay matukaay tax na ba tey jii Euh, mbir mi naam jot nañu fukki junni ci ñu jot feebar bi waaye loolu si diir bi mu am ay réew ay millions ñu ngi ci te ñoo ñu ëpp doole fuuf ëpp ñu ay euh, jumtukaay kon nag maa ngi santaat suñu mbokk yi waa Sénégal yëpp di leen gërëm ci bés bi di leen ndokkale di leen ballu ax ñoom ñëpp te di leen bal ax di ñaan yàlla mu may ñu ñu teewaat waxtu wi déwén allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam di kàddu yi njiitu réew mi ñu dem ba ca Touba foofee xalif général ba moom teewoon na lii di jullib juma bi kookee nag di sëriñ Fallou Mbacké ibnu sëriñ Abdou Khadre moom moo jiite woon lii la di julli bi sëriñ Mountakha Bassirou mbakke nag discours gu gàtt la ci def wante na njàngale yi nga xamante ne mën na koñ ci jële tuuti sëy maam Serigne Fallou Mbacké ginnaaw ñaari rakk yi nga xam ni jiite na ko moom def na li nga xam ni moom mooy xutba arab bi eh, ci kanam mu mbooloo bi nga xam ni teeloon nañoo ñëw fi nga xam ni moom mooy juma Touba jiñ doon amal julli ji xali général des murit bi ñu ca noppee nag moom moo jël kàddu gi ni mu ko doon defee def déclaration waaye bi yoon sëriñ Serigne Mountakha Mbacké guddalul ndax discours bi matul juróomi simili waaye nag mu nekk lu am solo ndax moom dellu si na sant suñu borom daa di sant mbooloo mbooloo mi yépp nag ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñu gën a fonk li nga xam ni moom mooy suñu diinee xalifa général de mourides woon na tamit jullit yépp ñu gën a topp li nga xamante ni moom mooy digle yi nga xam ni moom la sëriñ Touba def waaye tamit gën a sëriñ mun taxa di wax ni moom xelam dal na tey saa su nekk rek dañuy gën di am yaakaar ginnaaw bi nga xamee ni nag gis na ni yu bëri yoo xam ni jotoon na fee jaar nekk suñu ginnaaw moom na xam ne ci lañ nekk muy ñaan mu antu ak jàmm ñu fàttali ni lu jëm ci wàllu mesure barrière yi maanaam takk masque sorianto waaye tamit seetal loxo yi loolu respecté nañ ko fi nga xam ni moom mooy jumaayu Tuuba topp nañ ko tamit fi nga xam ni moom mooy ndindi gi nga xam ni kii di sëriñ Ahmadou Rafaay Mbàkke moom moo jiite woon julli ci kanamu ki nga xam ni moom mooy sëriñ Abdou Fatah Mbàkke moom tamit amal na li nga xam ni moom mooy xutbaam sëriñ Ahmadou Rafaay nag li nga xam ni gën na cee fesal kàddoom jëmale na ko ci li waral feetu tabaski bi nga xam ni moom la ñuy amal waaye tamit fàttali waat na askan bi kan moo nekkoon Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ni moom moo sos yoonu murit tuuti say Mbàkke Sud FM ca booba jamono njaareem imaam Serigne Habib Kandji moom moo fa jiite jula euh, jummi julli iid bi foofe itam daal na sàkku ci nit ñi ñuy fonk fexe itam delluwaat ci xar baax yi loole itam nemmeeku nañ ne foofe ca Medinatul Salaam kii di sëriñ Fallou basiiru Mbacké moom moo ko jiite daal di sàkku ci nit ñi ñu topp ndigalu borom subhaanahu wa taala Jurbel Adama Ndiaye imaamu grande mosquée bu Jurbel moom moo jiite jullik ñaari rakka yi fële nga xamante ne mooy sapeur pompier ci xutbaam Serigne Habib Kandji fàttali na jullit yi lan moo waral feet bi laata mu leen di ñaan ñu dellu ci jikko yu baax yi nga xamante ne moom la suñu maam yi bàyyi woon. def lu baax dimbale sa mbokk te yàlla rek ah yu baax yooyu. yonent bi tànk mag ñi bàyyi nañ ci compte yàq réew wala réseaux sociaux. ne saagaan xastante xastante xuloo mais gën teel na. fii gën amu fi. fi la rek fa yàlla sutura. yàlla. yàlla nekk. coono bi fi nekk. jafe bi. ak jafe-jafe bi. feebar yi ak feebar yi. yal ko fi yàlla jëlee. bi ñu nekk nawet ko yàlla àggale. yàlla ko yàlla barkeel ko. yàlla ko muurloo. yàlla bu mu nekk suñu mujj nawet. ci jumaa bi nga xamante ne moo nekk ca Medinatul Serigne Fallou basiru Mbacké. moom mu jiitee julli bi ba mu noppee am ay kàddu yu mu yëkkati. te ñun ñëpp ñu boose ñaan ñu boole ñaan. ñun ñëpp ñu bo ñu maase ñaan. kii nga xam ne mooy fi Serigne Touba di Serigne Mountakha. kii nga xam ne moo fi Serigne Touba di Serigne mu Mountakha. suñu borom doolee dëgëral ab taxawaayam. suñu borom doolee dëgëral ab taxawaayam. dolli ko ak wér. dolli ko ak wér. ak dal. ak dal. ba gàllankoor yi nga xam ne am ci lislaam yëpp ba nga xam ne gàllankoor yi nga xam ne mooy am ci lislaam yëpp ak pakk yu am ci yoonu murid yëpp ak pakk yu am ci yoonu murid yëpp maas la ko mu set wicc ñu la ko mu set wicc ñu dellu ci suñu jàmmi lislaam ñu ñu dem yàlla dem dellu suñu jàmmi lislaam dellu suñu pas-pasu bi dellu suñu pas-pasu taalibe bi Diourbel Sud FM Adama Ndiaye Adama Ndiaye mm, mosquée mu sante ca Thiès foofe itam lañ fa daal di xutba bokk na ci coowal suuf ak wuruj ak gi ñu nemmeeku ci réew mi loole ki ko xamle di imam tafsir Babacar njur Babacar Ndaw ponku ihsaan wala rafetal moom la imam tafsir Babacar Ndiour bu juma musante tànn ginnaaw julli ñaari purak di tabaski jàpp na ne tey ji rafetal boobu euh, jafe na ci Sénégal ne safaan ba la faral di gis misaal bi mu jàpp nag lii di injustice rawatina misaalub coowub suuf joxe ay milliers de mètres carrés ou bien des hectares foo xam ne fi dëkkuwaay dafaa jafe jafe fa nit ñi lool ñuy xat-xatloo mbaa sax amuñu fu ñu dëkk nga jox kenn. Tafsir Babacar Ndiour yamu si tey jii nee na tolluwaayu réew mi ñi nga xamante ne dañ leen dénk moomeelu askan bi ñu aakimoo ko. lu neex waay def Sénégal moom te xaalis a tax ak wax ba jàll rek au point que nous avons poussé la cupidité la duperie la perfidie le vol l'injustice l'insouciance la corruption à un niveau jamais égalé au point que chacun fait ce qu'il fait n'importe quoi d'illicite et personne ne dit rien. Malgré les rapports de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes CREI, mais c'est ça qui pose problème. Imam Babacar Ndiour di si yokk ne tey jii ruus na ab kilifa wala ministre di am ay milliards ban la laaj déclaration de patrimoine. nag léegi ñi jubatuñu kenn ñemewu la teg li nga xam ni moom lañ la dégg nga teg ko ci yoon ñu ne la kon wonee li nga am balaa ngaa génne boo génnee woon li nga am ñu xam loo fi jël ak loo fi jël mais gàcce passé wu ko boo joxee déclaration patrimoine génn fi ay milliards benn ministre sañu fi génne ay milliards bu boobaa créé yi nga war a dem ndax ministre du milliardaire su fekkee loolu rek la milliard bu ko bëgg da ngay dem liggéey dans le privé te jii neen àll bi ak garab yi nañ ko gën a sàmm waaye te xam ne réew dafa war di dund imaam Tafsir Babacar Ndiour ñëw na si leneen li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu l'hôpital hôpital yi nee na tey jii group Sénégal war na leen gën a dooleel waaye jamono nawet bi ñu nekk si buru bi nga xamante ne dafay faat lu bare bare si àdduna bi ne kilifa yi gën a sàmmonteeg li nga xamante ne moo leen war ñu xam ne mbas mi lu nekk la waaye it feebar bi mi ngi fi di fàttali sax fi nga xamante ne mooy jumaa musante sàmmonte nañu ak digle way kër docteur Idrissa Seck ak kilifa yi nga xamante ne ñoom autorité administrative yi kenn gisu leen nit ki ñu ko nemmeeku woon ci korité bi ñu génn Babacar Ndaw Thiès Sud FM ca booba jamono ca mosquée Serigne Abba Sall foofee ca Ndar imam ratib Serigne Abdallah Sall sàkku na ci julliti ak kilifa yi nguur ñu gën a fonkante daal jégal ñi nga xamante ne dañ leen di tooñ wala boog ñu daal di def pum njuumte sàkku na itam ci senegal yi ñu daal di fonk lépp lu jëm ci wàllub mesure barrière yi saint ci kàddu yi le la kii di imaam Serigne Abdallah Sall mi nga xam ni mu jiite ñaan gi ca Grande Mosquée Serigne Abba Sall daa di door xutbawum te mu daal di rafetlu ànd bi ñu nemmeeku ren jile ci mboole mu jullit yi ci màggalub feetu tabaski bi lee. premier point bi ñu jëkk a wax mooy àndandoo gi ñu àndandoo julli adduna bi yëpp Afrique Asie ñoo julleendoo loolu tam signe bu rëy la. kon ñu sant ci yàlla imaam bi dellu di ñaax mboole mu jullit yi rawatina ñi nga xam ni ñooy njiit yi ngir ñuy baale saa su ne ak fu mun ti nekk bisu tey bi bis la boo xam ni dégg nga bisu kontante la bisu juboo la bisu àndandoo la bisu balante la nañu baalonte bu ñu nee nañu baalonte tam ñu ngi koy commencé ca kaw président de la république. waaye ci jamono ji nga xam ne ni ñoo ngi jànkonteel ak mbas mi di Covid 19 moom mii di imam bi ñaax na rek mboole mu sénégalais yi ngir ñu yokk ñaan gi waaye itam ñuy respecté digle yi di bàyyeeku ci autorité sanitaire yi. ñaari solution la ñu am solution bu njëkk bi moo di bu dara ñëwee mu jaaxal leen na ngeen ñaan ndax ñaan bi kat loo daw daw te yàlla pare pour teg la ko xoolal def la koy teg ndax bu fekkoon fegu ak daw ko mooy doo ko am kon ministres yi du dal buur yi kon loolu nañuy ñaan ñaareel ba nag docteur yi yàlla daf leen indi ci kaw suuf ni leen yéenay faj kon li ñuy wax mbokk yi nañ ci jaar ndax lii itam du ay kaf. waaye itam imaam bi ñaawlu na doxalinu yenn ci autorité politique yi nga xam ne ni bu ñu leen falee ba noppi kenn du leen mën a jot. ñun président mënuñu koo gis boo bindee lettre yenn saa sax du am tontu malgré ñun ñi ko jàppaloon ci lañ bokk waaye mënuñu ko gis ministre yi sax gis leen dafa jafe loolu nag war nañu xoolaat. imaam bi daal di jeexalee xutbawam ci ay ñaan gi rek mbas mi di Covid 19 jóge fii waaye ñaanal na kii di dem ci yàlla Babacar Touré nga xam ni moo sos groupe Sud Communication.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 Sud FM. ca booba jamono foofee ca Sigicoor imam Chérif ay dara moom nag mi jiitee julli bi moo ngi sàkku ci julliti ñu dellu ci yàlla ak njàngale yi lislaam rax ci dolli ñu fegoog la nga xamante ne wala ñu sàlloog dogal yi nga xamante ne ñoo ngi bàyyi ko kër docteur benn Michel Kanfoudi. mbooloom jullit yi nekk fii ci diwaan bi ñoo màggal aljuma ji ba supp Aydel Kébir bi ci jumaa ju mag ji nekk ci Ziguinchor foofu yi nga xamante ni foofu la autorité yi nag Habib bi di Chérif Ismaïl Aïdara daal dinay dellu siwaat bu baax a baax ci jàngoro ji nga xamante ni moom mooy mbas mi moom nag mu ngi ñaax jullit yi ñu gën a respecté mesure barrières yi waaye tamit ñu delloo lépp ci yàlla mi nga xamante ni moom mooy buura ñu ñooy ne état ñoo xam ne avancé nañu ci xam-xam ci alal ñooñu yaakaar nañ ne xam nañu yépp nax nañ seen bopp wala bew nañu yàlla nañ yàlla musal yàlla may la nga bew yàlla mu la may mun na ko jële ci saasi ci seconde walla ci minute yée pour nit ñi yeewu ñu xam ne yàlla am na ñu xam ne feebar am na moom yàlla moo koy wàcce moom yàlla moo koy génne kenn du jàng alxuraan te wax loo awuzu billahi min asheytaan rajim kon nag na ngeen xam distance bi nañu respecté masque nañu respecté raxas loxo population bi nañu laabal suñu xol yi. xutba boobu nga xam ni dafa méngoo ak jamono kii di jaraafu Sikicoor député maire Abdoulaye Balde di ko rafetlu bu baax a baax moom itam muy ñaax askanu Sikicoor ñi gën a bàyyi xel ci mbas moomile. loi islamique ci charia bi dañ ne boo ngeen di julli dangeen ngeen da ngeen di nekk mbagg ak mbagg actualité bi tax na ba ñu réadapté pratique islamique bi de telle léegi ci seen euh, dictal mais aussi ci dictalu autorité Euh, permettre na ñii ñi ñu gën a xaw a soriento pour que ñu mën julli donc defe boobu c'est bu am solo la boo xam ne ñëpp war nañ ko ci déglu déglu mais aussi ñëpp wax nañ ko respecter parce que mbas baa ngi fii biir biir réew ñu ngi fii ci suñu biir dëkk nit ñaa ngi feebar ñu gën bare dee ñu bare ci lu ñeel màggetaayu jumaa jooji nga xam ni ñu ngi koy tabax ci atum 1937 te jaraafu Sikicoor di xamle ni liggéey yi ngir defaraat ko daañu tàmbale ci ay weer yu néew ci doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour su Sud FM ca Sigicoor la ñuy des dem ba ca Bougot foofe imam Thierno Aliou Sow mi jiite jumi euh, jul euh, julli bi moom nag lu mu mënuta nangu benn yoon mooy kàddu ya nga xamante ne la ca ginnaaw dëgg lay doon te kilifa yi di ko yëkkati ba tax rek mu daal di ko ñaawlu bu baax a baax moom imaam Thierno Aliou Sow ñu teewlu ko Ignace Ndeye. donc mu nekk mbir moo xamante ne kilifteef amatul amatul ci état amatul ci kër yi amatul ci fen même Macky Sall dafa sonn pour pour pour mu yilif ñi mu nekkal ba bu sañoon yar ak teggin bi nga xamante moo nekk ci moom Macky mu ñi mu nekkal ñu mel noonu ñu dimbale ko parce que moom bu sañoon gars yi du ñu wax duñ fi saagante duñ fi nekk di que moom ko. dégg nga mais loolu amul kër itam noonu la demee amul kilifa kilifa am na mais duñ kilif téef ci boppam la population bi commencé di wetti bëggatuñu kilifa ñu ku leen yilif donc loolu nag dafay naxa dafay naxaree am bon yow boo fi nekkee nga nekk kilifa nga war a yilif ñi nga war a yilif te ñooñu ñu nga yilif leen xam nga dafay métti lan moo ko waral crise des valeurs c'est problème bi mooy des gens infidélité mooy ñi nga xamante ne ñii ils sont pas ils sont pas fidèles dañuy masku noonu rek boo pare nekk fa di xeexante ci seen biir parce que lu leen yitteel mooy poste yooyu yooyu ñuy xeexalante privilège yooyu ñuy am moo leen yitteel mais président yitteelu leen de fi région bi fii la may ñaawlu dina damay rafetlu ñaawlu euh, ñaawlu bi mooy dama bëgg kilif kilifa yu am parole yu xam ne loo wax nga respecté boo xam ne kilifa nga ko sa kilifa nga ko sëqal soo ko waxee lii c'est blanc c'est blanc c'est rouge c'est rouge loolu loolu mooy loolu mooy ba pare ñu respecté kilifa diine yu fi nekk respecté population ak gën a am yërmande ci ñoom jàppale leen dañuy maslaxaan yi rek bay mais nit ñi ñoom fu ñu jàngee lañ jàngee ñu tukki ñu tukki ñu gën leen yeew gën leen xam addina yàlla dënk leen loolu rek ñu toog mais ñu mais lu ñu xalaat rek fekk ñu xalaat xam nañu fu ñu jëm donc nañu changé doxin doxalin ñu dawal yërmande Macky def na lu mu man lu nekk jéem na ko mais ñoom ñi ne boo ni aide alimentaire ñu ne détourné nañ loo wax ñu ne lii détourné loo waxee ñu ne lii def nañ mais loolu mënut a nekk si population xoolal tey xar yi yërmande bi dafa dafa commencé réer dafa commencé disparaître xam nga lu fi nekk naxe naxe mbaay naxe mbaay moo fi nekk mais yërmande bi mu ngi commencé réer di koy baax yëpp mu ngi commencé réer ñi war a yërëm yërëmatuñu ñu ñuy yërëm ñu ngi gën a jaaxle ñi ñeneen ñi ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk si seen tànk seen caay-caay rek di di doxal seen caay-caay di utiliser seen xel fexe nu ñuy dundee ci kaw askan bi loolu moo fi ne à part loolu leneen angu fi di kàddu imam euh, Thierno Aliou Sow foofe ca Bukot euh, Sigi coor xibaar yi ñuy yëkkatee ko laata wax sa xalaat Tivaouane ñoom itam julli ci pénc ba comme ni niñ ko defee woon rek tax na it ñu daal di joxe ay tegtal rawatina lépp lu jëm ci wàllub mesure barrière yi fexe daal di tuub jéggalu suñu borom. Tiwaawoon Babacar Sow Aïd el Kabir 2020 di feetu tabaski Tiwaawoon ku ci nekk fa nga nekk nga julee di loo xam ni lu nemeeku nañ ko ci xalif bi Serigne Babacar Sy Mansour julee këram ni mu ko digale ñi nga xamee ni itam ñoo di taalibi tijaan yi communauté murit ñoom ca Tiwaawoon daal dinañu julli ca quartier Cheikh Awa Balla Mbacké ak quartier Cheikh Marouba Gueye Ndiassane ñoom daal nañu julli place bu mag bi nga xamee ni fa la ñuy faral di gàmmoo di julli goo xam ni ki ko jiite mooy imam ratib jumaa ju mag ji yu imam Sidi Omar Kunta ci Alassane Cheikh Albekaay Albekaay Kunta loole tax na sax bi yore kàdduk njabootu ahlul kunti yu di ñaan ñu jéggalante balonte ak waaye tam fexe ba jëfe li nga xam ni moom la lislaam santaane loole tax na sax ba Pape Abdourahmane Kunta di woote ñu dellu ci yàlla ñaan itam li nga xamee ni mooy feebaru mbas mi daal di dellu fa mu jóge woon waaye tam rawatina respecté li nga xamee ni moo di mesure barrière yi ca Mbuur foofe imaam Amath Faye bi nekk ci bopp jumaa ju mag ji daal dina a yi nekkee

defy ko sàggana fay bi dante loolu dalu laay loolu dalu laay salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbaa mhm. xar mi daanu la. ko de. ah <laughs> yaakaaruma ko ah néew daanu ma yaakaaruma ko. <laughs> maa ngi lay siyaare. delloo ziar Diop. maa ngi lay baal ci di la baalaax. ñoo ngi lay baal. yàgg sa njaboot ak ñëpp rek yàlla na ko fekk ay feetu ko ay ati ati ati at. amiin amiin Diop. te bu jiw dàq nu yàgg leen fekk ci rajo bi ngeen yàgg noo teeral. amiin amiin Diop. di nuyu mboolem wax sa xalaat rek. Mhm. di nuyu mboolem Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ni déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di baalu àq. Mhm. ndax woote ci rajo dafa doy waar. ndax léeg-léeg ko wax loo xam ne nit ñi dina la dégg maanaam mel na ci lu yor xaw a jëpp kon ñun ñëpp rek ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di jégalu ci ñu ngi leen di baalu àq rek ndax wax daa jafe lool te juum daa yomb lool kon yéen ñëpp daal. Mhm. ñu ngi leen di siyaar di leen baalu àq ci tabaski bi yal nañu ko fekk ay ati ati at rek. Mhm. bu ñëw dàq feebar bi fi nekk yàlla jële ko ci jàmm ak salaam yàlla delloo ko fi yàlla jëlee ko fi yàlla jëlee ko fi ci mën na ko ndax moom moom lépp am lépp yor lépp cay def lépp kon yàlla na ko fi yàlla jëlee rek yàlla nu yàlla doon ay xéwal léegi su ko defee tey jii ñu ñëw fii nga xam ne tey ji mooy sun gox bii rek nga xam ne ji mooy yoon yi xam ne moo jóge sagat ko ba Mbàkke Kajoor ndax fi ñu doon tey ji ñu ngi ci nawet ci jafe-jafe yu méttee méttee yu taraam na fi ndax fi ñu doon tey ji nawet bi tey ji bu commencé taw tey ji yoon daanaka doo am foo aw daanaka doo am foo yoonu ndeytaan lépp ca ab rang-rang la boo xam ne nii bu tawee xam nga wata bu ci dee jaar daanaka mën nga ne ko du daw ndax bu tooyee day ñàkkati rek kon ca président Macky Sall mooy suñu président de la république ñëwoon na ba mbijéen ne dégg maam yoon yi moom fala danaa ko defar kon yoon yi booba léegi noonu koy déglu te fal nañ ko falaat nañ ko ca moom la ñu àndaloon démb moom la ñu àndal tey kon nañu jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax yoon yoonu daal yittewoo nañ ko lool ndax nawet day demukaay di wax ko dëgg yàlla day ah bëgg a dem dem ah ku ko mën a amee si da jël la moom daal dana baax a ñu ngi leen di dëkk yi nga xam amuñu fi ndox leen ci jàppale bu baax a baax a baax a baax ndax ci askan wi lañ bokk ko bokkee moom leen lay bëgg-bëgg ak seen da ngeen koy mën a saafara kon ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ngi leen di jaajëf ñeen si TFM ñëpp rek jërëjëf lii nuyu directeur bi nga xam mooy Sonacos mooy bu rafet muy Modou Diagne Fada kooku wax ba dëgg yàlla dañ bu baax a baax ndax mi ngi jàppal jërëjëf Cheikh Diop Yabatil Diop ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. man ak ma salaamaaleykum. waaleykum salaam. sang bi ñoo ngi leen di ziar. delloo ziar. Ibra Ndiaye Peking Niaroy mooy nuyoo. ñoo ngi lay fay Ndiaye. ñoo ngi santaat sunu borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. di siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di siyaare si Abdou Karim Mbacké ak Cheikh Mame Rafahi Mbacké di baalu àq képp kuy Sénégalais képp ku di jullit ndax wax ci rajo dafa xaw a doy waar. ndax man nga wax loo xam ne am na ku ñëpp kon maa ngi jégalu ñëpp li ñaan yàlla mu bur yàlla boole jégal ci yenn nawet bii nga xam ne ñi ci lañ toll yàlla na ko saa borom àggale te bari te barkeel ci barkeel bi yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te jàmm nga am jàmm yàlla na saa borom boole na ko mm-hmm. mbas mi nga xam ne mi ngi wër ci adduna bi tam yàlla na ko saa borom bi jëlee soppi na ko nag ay xéewal saawaan baawaan fa may jeexal nag mooy maanaam xal yi nga xam ne moo bay ko lu ko jëm daara dal jooy nañ ko suba jooy ko ngoon bëgg nañ kuñ ci dimbale bu dara sax xanaa daara yi kokki joojee rek war naa tax xalla wa ñu def um mi ngoog jamono ndax daara jotoon na daara kokki la fay dikk ci ay doomu ba di fa jàng ak wan ku dégg ak ñu fay dem bëgg leen dimbale amuñu yoon de loolu day tiis na na xaroon trop de dinañ ci amul pexe maa ngi ñaan nag réew mi ñu nekk di Sénégal nañ gën a joxante loxo bokk ndey ak bàyyi te xam ne réew mi xam ne te mënuñu ko seddoo te nag dafa am benn tur woo xam ne mi ngi dab depuis ca sunu Adama Kawar képp ku ma tund tur woo lay dab dana la jàpp muy néew bi bari da nga ko dégg nga néew da nga ko dégg nga ñaaw da nga ko dégg nga ko dégg nga am ko dégg nga nekk ko da nga ko dégg nga bañ a nekk ko da nga ko dégg muy néew bi buñ ci bàyyee xel rek jàmm mën naam yàlla nu yàlla dimbali topp mm-hmm. te maa ngi ñaan ñu dimbali ñu jàngal wax ñu ko jàngale rawatina daara ko ki jërë ngeen jëf jërëjëf Ibra Ndiaye Pikine ginnaaw ray ñu daal jël keneen ci lay doon 628 allo Birama. waaw man la Anna di woote parcelle. waaw Anna Mindi mhm. maa ngi baalu àq ñëpp. baal naa ñëpp nag maa ngi baalu àq ñépp bal naa ñëpp ñaan yàlla ñu fekkee déwén. Mhm. mu dàqal ñu ren. ñoo ngi rafetlu bu baax xutba yi sell yi yi nga xam ne seetlu nañ ko mu jóge ci imaam yi jóge ci yeneen kilifa diine yëpp ñoo ngi koy rafetlu. Mhm. tey am ñu yokk ñaan yi. ndax naataange gën a yaatu ci Sénégal xéewal yi gën a baawaat mbas mi mm-hmm. discours président ki Sall ci tabaski bi maa ngi koy rafetlu bu baax ndax amag ci vaccin bi amuñu lu koy faj li ñu am mooy respecter gestes barrières takk takk continuer di raxasu saa su ne suñuy loxo ak saabu laal gel alcool ngir aar sa bopp aarale ñeneen yi di wane suñu mbégte ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe ak personnel de santé bi yëpp ak waa Sud rafet lu seen taxawaay ci xeexu jàngoro coronavirus bi maa ngi jàlle ñi am mbokk bu génn àddina ci mbas mi mboolem ku am tawat ci Sénégal yàlla na ko yàlla may wér mm-hmm. ñaan mu arrêté ñu mbas mi arrêté ko ci àddina bi yëpp li président wax dëgg la ñun ñoo war a mën a góorgóorlu kenn ku nekk fi mu nekk yaa war a mën a góorgóorlu aar sa bopp aar sa morom surtout ñun mag mi nag duñu lebal de mbas mi moom du ñu lebal bu ñu ñuy góor góorlu bu baax a baax a baax takk masque yi bu baax xale yi tam góor góorlu bu ñu góor ñun ñëpp ñu ànd góorgóorlu feebar wi yàlla mën nañoo may ñu gis solution ci yëf yi merci Birame. jërëjëf Anna Mendy woote ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. allo waaw ah, asalaamaaleykum. waaleykum euh, salaam Birame la Souleymane na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah waaw mais di commencé di baalu àq. Mhm. di baalu ak waa Sénégal ak auditeur Sud FM yëpp. Hmm. di baale ak man tamit di ñaan yàlla bu may ñu fekkee déwén yu bëri. Hmm. yàlla jële fi mbas mi. donc euh, tey moom tabaski la c' est une communion nationale la. donc est le moment bi nga xam ni ñëpp ay retrouver wu en famille. donc di ko fete ensemble. donc euh, c' est aussi le moment donc waxante dëgg suñu biir. donc imaam yi wax nañu. sëriñ yi wax nañu ñëpp wax nañu donc dëkk bi am nañu ko yàlla dénk mooy politiciens yi ñoom ñoo war a teg affaire bi ci yoon comme ça wàññi méttitu réew mi parce que dëkk bi métti na trop waaw boo gisee tabaski bi ni mu demee préparation yi ak mbas bi tout ça tu sens que vraiment c'était dur ko c'était dur donc euh, vraiment na politiciens yi jëf bàyyi coow li bàyyi coow li parce que loolu dong moo ñu mën génne ci problème yi ñu nekk nii donc mbas mi nag c'est une cause nationale cause nationale nag boo koy xeex dañ ci dugal ñëpp bàyyi waxu sew sewaan bi donc waxu sew sewaan bi day tax discours boo def yow gouvernement kenn du ko dégg waaw te boo gisee loolu yëpp c'est les chaque jour problème chaque jour problème yooyu la ñu war a moytu ci dëkk bi on a l'occasion de poser le Sénégal sur les rails mu euh, régler problème de d'injustice bi fi am voilà dëkk bi ñu ñëpp ñoo ko bokk moom moment yu mel ni nag mooy may nit ñi ñu toog avec le recul xool lu ñu jëf déglu nit ñi seen critiques yi parce que ñun dañuy wax pour defar waxuñu pour yàq ku fi def daal lu baax dañ koy wax ku fi def lu bon tamit dañ koy wax dégg nga voilà il faut dire aussi même si ça fait mal voilà di ñaan yàlla mu yokk jàmm ci réew mi rek voilà donc euh, yéen waa Sud FM di leen rafetlu seen liggéey bu rafet bi ngeen di def. Hmm. yenn na leen yàlla jàppale vraiment on est très fiers de vous merci beaucoup merci encore une fois. jërëjëf hmm, jërëjëf Souleymane woote ca Paris ñu daal di jël keneen. ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Birame. yaa eh, ñu ngi ziar ma dello Gassama. delloo ziar Gassama waaw. waaw ci jàmm na yàlla may ñu teew ay déwén déwén rek yàlla may ñu fekk ko te tal ko. waaw maa ngi wax ci xutba élimaan boobu ma dégg leen rajo bi saw léegi nit ñi nañuy mooy boole ko ci sama commencé ko sama bopp nañuy tënku ci njub parce que loolu moo wax président jiite. ñii dajale xaalisu sénégalais yi ñëpp bokk ko kenn këppoo ko nit ñi taxaw di la defendre naan deful dara kooku dafa war a beneen bi nit ñi li mu wax nit ñi nañu yar seeni njoboot yi parce que kilifa sooy xool ni sénégalais di demee on dirait ñu bi ñu nekkee xale nit ñu doon yara yarootuñ léegi xale yi am nañu fit boo xamante ni ñu ngi def loo xam kenn ñemewu ko woon ñii nit soo nekkee doo su nekkee papaam sax te doom def lu bon bul ko protéger parce que fëkk yi ñu naan ay xale yi ñuy kidnappé yóbbu leen ay borom yi ci kër ñu naan dañ leen a kidnappé ay directeur école naan dañ leen a kidnappé te di jamais bi mosuma ko dégg Sénégal nit ñi nañu jub nañu xool li nga xamante ni moom la nit ku jub war a def ci këram soo yore sa kër ku deful lu dëgg taxawal nu muy sa doom loo ko bëgg-bëgg nga xam ne kii deful dëgg teg ko ci yoon ba mu xam ne lii mu def du yoon mais nit ñi dañuy défendre ay défendre borom kër guy défendre doomam man sama doom su génnoon dem àll fanaan fa bëtal si ñëwee billaahi wallaahi du ma xaar sax pël di ko def maa koy yóbbu loxo ñu xoolal ma ko nan ak naka la nit ñi nañuy yar di sédiment boobu waxee ma kër gi la musiba di commencé nit ñi dañoo bàyyee ndiku ci kër gi kenn ñemeetu la yar sa doom kenn ñemeetu wax dara léegi ñu ngi génn ci mbedd mi ñu def na ko su lu noonu su fexe ñu naan dugg na fi génn na fi nit nañu yaraat njoboot gi nañu yar nit ñi nit bi ñu nekkee xale li ñu ñemewuloon loolu ngay gis xale yi taw teg di ko def te kooku suñ ko seetaanee dina dem ba ëppi loxo su ëppee loxo nag mooy indi musiba kooku maa ngi koy ñaan sénégalais ku ci am borom kër ni ngay amee kilifteef di rendi xar di di say doom taxawal noonu ci sa njaboot bi fu ñu teg seen tànk muy guddi muy bëccëg na la nekk lu wóor ku def la ko sudul noonu weer ko bu xaar sax nit ñi di ko dénoncé yow dénoncé ko nga yar ko dama xewa jërëjëf euh, Gassama woote ca Amérique ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi. Birama maa ngi la nuyu di ziar Laye Ndiaye maa ngi woote depuis Dakar. Laye Ndiaye di leen jaale. Babacar mu jëm yàlla na ko yàlla teeru boppam. ah liggéeyam rafet na. Hmm. li ko waral mag ñi ñu ko wax. moom def da ko def ni ñu wax ko. Hmm. kon yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. loolu moom biir na bokk na ci li tax ma gën a woon woote pour jaale leen ko. waaw ah, li mu bàyyi na ginnaawam. ñoo ngi ñaan yàlla mu continuer ndax Sud FM day wax dëgg yàlla ñëpp leen apprécier ndax seen liggéey bu rafet lépp lu ngeen def ci dëgg ngeen ko teg bu leen leeru doon ko wax loolu rafet na kon nag yàlla na yàlla def loolu mu bàyyi ci ginnaawam am ay mu teg ko ci ay loxo yu wóor hmm. loxo yi mu ko teg wóor na yàlla nañu ko continuer liggéeyal euh, réew mi nag euh, euh, ama hmm. ah coow li bari na waaye li indi coow li mooy ñi nga xamante ne ñoo ñooñu yor am na ko ko wax léegi mooy xaw ma imam la imam boobu li mu wax Macky Sall mi ngi def waaye problème mu Sénégal mooy sénégalais yi mooy lan mooy Macky Sall est-ce que li muy wax ñu ngi koy def déedéet defuñu ko loolu mooy dëgg li imam boobu wax mooy dëgg loolu mooy dëgg laa nag bu fekkente ne ñu ngi jëm ci deux mille vingt quatre ñu nekk deux mille vingt Sénégal yi nekk ci problème yi nekk nii ah président Macky Sall de moom lañu faloon dafa war a jël ay responsabilités am ko deful ah, ko rëccu loolu moom leer na ndax nag ñun gëm nañu mu ngi liggéey mais mu ñun nag mënuñoo gëm ku ñu falul yor yor bi di koy yàq ñu ànd ak moom ànd ak moom mu couvrir mu couvrir leen loolu duñ ko nangu mais gëm nañu am na yéene gëm nañu mi ngi jéem waaye so mi ngi jéem waaye sottiwul de mbas mi ñëw nag gën a jaxase carte bi ñëpp am problème waaye nag gundaandaat gi ñu nekk nii day ah am na leen luy xew de loolu man maa la ko wax kon nag maa ngi leen di ziara déwénati baal leen ñu àq baal leen àq yàlla nañu yàlla boole baal maa ngi nuyu soxna Sodou Dieng ca Touba Mbacké hmm. ak Boy Diaw jërë ngeen jëf jërëjëf Laye ci Ndakaaru ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Hmm. séeréer jaamu tukulóor. waaw. Ah. baal ma àq baal naa la. baal nañ la baal nañ la. na ngeen ma baal àq maa ngi koy baal àq sénégalais yëpp ak. Hmm. Euh, sunu groupe wax sa xalaat. di baal àq ñëpp. ndax euh, euh, kàddu yi tamit mën na jëpp nga jaa jàpp ne jub na te fekk euh, ci kam ka koy dégg jubul ci noppam loolu nag wuñ ko ci li ñu taamu rek mooy wax dëgg loola waraloon depuis deux mille fan ne woon incha allah foofu lañ bëgg di nekk ba ila abadal abidin li des mooy li jàll nga xamante ne ñun ñoo ko bokk il faut ñu koy waxante nag parce que ni nu yore mbir yi moo jubul imaam yépp wax nañu léegi nag mën nañu créer seeni imaam bi bopp ñu waxal leen mais li am solo mooy lii ñëpp gis mooy mbir mi teguwul ci yoon al istima al istiwa xawla amam al qanun amul ñi ñuy yem devant la justice ñi ñuy tudd ci phobie ak i drogue ak i trafic ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi ñi nga xamante ne tey ay ganaar lañu sàcc wala dañu juum def benn njuumte bu daw ñoom ñu ngi tëdd ca kaso yi te ñii ñoo leen tax a loolu gis ngeen ko ñëpp teg nañ suñu bët amul kenn ku bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar ku tëdd ca kaso ba ñëpp a sell ñëpp a baax waaye ñu bokkul ci ñoom baaxuñu loolu jubul yal na nu yàlla yërëm te ñu jubbanti sunu toogaay ndax yàlla yërëm ñu wasalaamaalaa man jërëjëf jibi Sow ca Parcelles Assainies yi ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. El Hadj Birahim Ndiaye wala Birahim Diop. El Hadj Yankoba. jaaxaan naa caajaay de moo lay siyaar. ñu ngi delloo ziar Diouf. di siyaar waa rajo bi yëpp euh, di siyaar El euh, Hadj Mbaye laay fële ci Cambérène. Hmm. ah xanaa di leen jàllee ji ki ñu bokk rek. muy Babacar yal na ko yàlla yërëm te yéexal ñu. soo gisee may ñaanal xalifa général kullu murit yu mel nii rek événement yu mel nii bu ko amee bu amee rek mu taxaw ko la ca dolli ko boo gisee may ñaanal président la république mooy événement yu mel nii rek mu taxaw def ay déclaration seede ko Babacar Touré waxu fitna yeewu fitna ubbi na rajoom quatre-vingt-quatorze ba léegi mosu fee yee fitna mosu fee wax fitna kon yal na ko yàlla yërëm te jégal amiin yow nag dama lay gërëm di la sant di la di la baal ak ndax fukki fan ak juróom yi ma toog bu ma ko toogul woon dugguma ci seroo bi du ma am xaru tabaski yàlla sa yàlla ak yow moo tax tey ma dajale lu ma amee xaru tabaski kon yow loolu maa ngi la ciy gërëm la sant xanaa di dénk askan li ma leen daan dénk rek nañu bàyyee fitna ci wax nañu bàyyee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn nguur kenn du xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex ak moom la ma leen waxoon démb ak bërki démb rek président Macky Sall amul opposition ay noonu la am wala la preuve noonu ne la ñuy waxee fu ne la génn fu ne la ñuy di félicité nag bu baax nag président la ci discours bi mu def bi mu jullee ba pare di gërëmaat encore une fois docteur yi ndax tey jii kenn ku ne yaa ngi ci sam xar di fees di lakk di rend di lakk docteur yi tey talluñu ko ñu nga sëgg ca malaat ya di faj malaat bu jo bu bu bu lëxalëxi ñu faj bu lëxalëxiwul ñu faj comme docteur yi gàcce ngaalaama ñu ngi leen di ñaanal encore une fois fan gudd ak wér moo ñoom ak seen ministre de la santé ginnaaw bu loolu passé xawe personnel ku mu yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàgg fi te ànd ak wër Alaaji Yankoba Diouf foofee ca Thiadiaye ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naa leen def. sant bu baax alhamdulilah. waaw ah, yéen a ci jàmm. ñoo ngi sant yow nag. ok man la Thiam. Thiam waaw. Ah, ñu ngi baalu ak mbokk yëpp euh, di ñaan yàlla tamit yàlla may ñu fekkee ati at. amiin. Eh, di jégalu tamit lépp loo xam ne aussi tamit mus nañ ko si wax. li hmm. nga xamante ne am na ñu mu dérangé. Eh, Birane man fi may bëgg ñëwee rek mooy que euh, Sénégal tey boo gisee li ñuy dund tey comme ni ko ñëpp xamee daanaka ci àdduna bi xaw na metti wala sax ñu ne dèjà euh, euh, ñu ne dafa dafa metti eh, li ko waral nag ñëpp xam nañ ko mooy virus bi par exemple boo seetee tey fii ci Italie maa ngi xool journal bi tey ci ngoon ñu ne seen premier trimestre wàcc nañ douze pour cent douze pour cent virgule xaw ma nangam France treize pour cent nangam depuis deuxième guerre mondiale mos ta ni kon yaakaar naa réew yi nga xamante ne dañoo euh, seen développement demul noonu lu mel ne Afrique ñooñu taxul ñuy wax donc li may dégg ñuy wax tabaski tabaski man y'a un mois ci ginnaaw ne woon naa nit ñi nañu fagaru parce que <clears throat> li xew ci monde bi dina touché réew yëpp lay touché leneen li aussi <clears throat> damay gis ne ñàkk euh, sant yàlla tamit day am toujours ci discours yi boo seetee tey ci bi mbas bi ñëwee euh, bi ñu toogloo ñëpp sans liggéey ñu bëri ñu ngi doon wax ne ñun dañ daan am nangam nangam te jamono yooyu ñu doon wax noonu avant virus bi dañu wax Sénégal dafa metti Sénégal dafa dëgër bi virus bi ñëwee tey yaakaar naa ne bu doon seen sago tey Sénégal boobu ñu doon wax ne dafa metti woon dafa dëgër mooy ñëwaat donc donc doomu aadama fu mu nekk rek lépp lu muy am rek nga sant yàlla leneen aussi tamit ñuy respecté kilifa yi muy kilifa diine yi muy président de la république koo xamante ne yow bu la toog la nga toog ñi moo génn bu la ne nga jóg kooku am na kilifa bu yàlla dénk euh, boo xamante ne yow loolu war na tax nga respecté ko ak lu munta xew mais dañu gis ne tey lu waaye neex président lu waaye neex tey wax euh, euh, euh, kilifa diine yi yooyu yëpp nag ak ñàkk sant yàlla bi comme li ma ko waxee léegi yooyu yëpp tamit baaxul ci jullit baaxul ci jullit donc nañ delloo xel yi ñu sant yàlla ñëpp boo nekk benn ñu xam ne li xew tey du du Sénégal rek fépp la ci àdduna bi dañuy wax ne sax président yi nga xamante ne dañuy gouverner ci période bi ñëpp dañ leen war a yërëm ndax da nga jàpp ne ci ñii dañoo télé xamuñu nangam fekk nag du loolu mbas mi la bu ma demee ba tey aussi biraan may dégg ñu ne hmm. discours euh, mbas mi jàllul man daf may yéem du kilifa diine du rappeur du comédien wax nañ partout mais ba tey may dégg ñu naan discours bi dafa jàllul moo tax ba tey virus bi di circuler biir Sénégal loolu tamit euh, beneen beneen euh, feebar la donc yàlla ñu yàlla jàppale yàlla hmm. jërëjëf Thiam ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum mënatuma nappi di ko wéy mënatuma wéy maaleykum salaam. ah Birama. waaw sëriñ Mor. la di jaraaf léegi réew président de la république. Hmm. maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi di ñaan réew mi suñu borom yàlla dolli ñu jàmm. amiin. Eh, dafa am xam ne ci biir na yi am na benn imaam bu ko wax nee na daañu milliards yi fan lañ ko jëlee donc xam nga su doon imaam imaam intellectuel xam nga salaire yàgg naa ko wax ci rajo bi man j'ai fait trente sept ans de service kon xam naa salaire bi Kayar lu mu mën ak lu mu mënul xam nañ ko milliardaire du noonu man yor na yor naa benn kii boo xam ne document boo xam ne ki ci ëpp ñu fay ko Sénégal quatorze millions la te banque la nekkoon lu mu dugg banque bi xam naa salaire lu mu mën ak lu mu mënul gars yi fan lañ jëlee milliards yi yor de potre potre pour ko fasal fasale loolu laaj bi imam bi dëkk Thiès la a beaucoup informé c'est ça boo ci bokkee da ngay gëstu da ngay gëstu da ngay xool li xew ci réew mi man maa ngi koy félicité ci participation bi mu def parce que gars yi ni ñuy lekk milliardaires yi jaaduwul est ce que dañu def ay feu yi it wala dañu dëpp xaalis ci réew mi moo xam maire la wala lu mu doon wala ministre la ndax dafa dëpp kees wala milliardaire du ay caaxaan du ay caaxaan te gars yi dañuy erreur xaaj bu jeex la ñu yor ñu leen toog askan wi di bëgg a dee xar yaa ngi nii lamb demul fenn parce que mënuñu koy jënd góor yi service mënuñu jënd xar parce que mënuñu mënuñu fekk mënuñu créé mënuñu war mënuñu defar ay fóote kon ñoom ñooy xaalis bi fan lañ jëlee xaalis milliards yi ñu yor ñu ko pasar pasaree ay oto cinq cent millions jënd portable un million et poussière fan lañ jëlee xaalis bi loolu mooy laaj bi ñu ne la gërëm baax ba ren bii sa alayhi salaatu dafa wax ne ado la daf ne moo ko yaral boppam gaa ñuy woote fi nañu yaru nañu yaru biraama adduna day jeex te lii ngay jeex Abdoulaye Wade dem na Macky Sall ci des léegi mu tàggu kon gaa yi nañu yare nañu yare laa wax rajo kenn du ko di waxal lu la neex daa ñëw. jërëjëf euh, daal di ko jaajëfal sant ko gërëm ko ñu ñu ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen sud nutrition buñ ca noppee sud éducation moom moo ci tegu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal. ngeen euh, passé feetu pour tabaski ci jàmm ak seen njaboot ak fu ngeen mënti nekk. Birama Ndiaye.